ngeen jot guddi ñaar fukkeel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli juróom-ñetti rakkaan rakkaan bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu benn yoon. jàng bu huwallaahu ahad ñetti yoon dees na ko ca bindal tuyaaba ju tol ne limub mbooleem lu nit masa def ci lu baax te dees na ko jéggal mbooleem bàkkaaram yépp yu njëkk ak yu mujj te dees na ko musal ci lëndëm lëndëmu bàmmeel te yonent bi sallallahu alayhi lay àndal dugg aljanna mbokk yi ku ci bëgg yeneeni leeral nga dellu ci xurratu bu sëriñ Suhaybu bu Mbàkke